Samb ab euh, sénégalais la bu nekk ca Amérique moom nag euh, dañ koo faat dañ koo fetal ca Atlanta foofee la amee nag euh, Horizon Sans frontière moom moo joxe xibaar bi mu ni nag ñaar fukki at yu teg lay war a am.